sénégalais ak mhm. commencé par man journalistes yi principalement ak ñiy wax di analyser ce qui se passe muy ñi def science politique ak leneen ak leneen mhm. dama jàpp ne su ñu bëggee comprendre la relation Bassirou Diomaye Faye mhm. Ousmane Sonko il faut ñu changer logiciel bi nga xam ne moom la ñuy lire les relations entre les hommes politiques parce que c'est pas la même chose je dis pas que ñii ñoo gën ñi fi nekkoon waxuma ko mais ñii ni ñuy xalaate ak ñi fi nekkoon ni ñuy xalaat dafa bokkul faisons un d'histoire soo xoolee relation yi am diggante suñu président yi depuis Senghor ak seen premier ministre bokkul ak relation bi am entre Diomaye et son premier ministre je m'explique Senghor dafa jël ab du juuf def ko premier ministre après bi mu amee problème ak Mamadou Dia ñu supprimer le poste de président du conseil Senghor nekk le tout puissant président de la république avec tous les pouvoirs mm-hmm. ñun suñu homme politique yi dañu dañu hérité dara ci suñu buur ñi fi nekkoon suñu maam yi ay buur ba pare hérité ci tubaab bi li ma bëgg a wax mooy suñu homme politique yi dañoo miin boo bu ñu la falee waxuma sax président mm-hmm. mais bu ñu la falee maire sax yow tu penses que buur nga mm-hmm. da ngay am benn cour bu lay topp am ay géwal yoo xam ne ñoo lay topp nañ ma ko jéggal di la wax lu la neex di la tàggal say maam. Mm-hmm. su ko defee sax dañuy def ba gëm loo la yow yow njiit li ne la yow da nga nekk président wala danga nekk maire parce que sa ndey ko liggéey. Mm-hmm. est-ce que yaa ngi comprendre da wala da nga nekk maire parce que yow kat sa ay maam ñoo xeex nangam ak nangam ak nangam Macky Sall noonu lañ ko def naan ko sa maam ay torodo lañ ak xawma ma laag la ba ba finalement moom mu gëm ne buur la. dëgg la or du buur ci république lañ nekk. affaire bi c'est c'est pas euh, je, je mais c'est pas liggéeyu ndey quoi. Mm. c'est pas looy donn mm et loolu homme politique yooyu ni ñu doon xalaate dafa bokkul ak ni Bassirou Diomaye Faye ak mm-hmm. Ousmane Sonko di xalaate muy benn. Mm-hmm. ñaareel ba soo xoolee Senghor encore une fois waxuma ne ñoom ñoo gën ñu fi nekkoon. mais dama bëgg a jéem a analyser ni ñuy xalaate te su may analyser ni ñuy xalaate ni ma leen déggee ñuy wax laa koy defee. maa ngi lay wax ne boo jëlee Senghor dafa jël ab Abdou Diouf def ko premier ministre ginnaaw bi mu tàggoo ak Mamadou jaay ñu toog ay années encore. Mm-hmm. du Diouf bi muy tànn Senghor qu'est-ce que Abdou Diouf a fait pour Senghor pour que Senghor def ko premier ministre dara. Senghor na lui doit rien du tout. Mm-hmm. Senghor en fait son premier ministre. ça veut dire quoi que ni comme disait Nicolas Sarkozy à propos de fion bi mu nekkee premier ministre am ne c'est mon collaborateur cest à que ces premiers ministres yi fi jàlloon yëpp ay collaborateurs u président dong lañ am na sax ñu ne du ay premier ministre mais c'est le premier des ministres c'est différent d'accord nga jël Abdou Diouf bi mu nekkee président de la République tànn son nami Habib Thiam def ko premier ministre kes ce que Habib Thiam qu'est-ce que Abdou Diouf doit à Habib Thiam rien du du point de vue politique laa ba a wax. même si c'est des amis euh, bi Abdou Diouf di jógee jàngi euh, di jël bëgg a jël avion ñëw Sénégal. moom ak David Diop euh, Habib Thiam ne ko nañ jël bateau ñu jël bateau avion bañ naroon ba Abdou Diouf naroon dugg moo daanu ci géej gi. Mhm. David Diop bii ngay dégg turam si la deewee. ñu bari ne Abdou Diouf finalement Habib Thiam parce que moo ko dugal ci moo ne ko nañ jël bateau bañ a jël avion. sa bon ça c'est une longue histoire. Mhm. mais en tout cas politiquement Abdou Diouf bi muy def. Habib Thiam premier ministre il ne doit rien Habib Thiam. Mhm. rien du tout. politiquement parlant. Mhm. Abdou bi mu tànnee Moustapha Niass def ko premier ministre pour que Moustapha Niass supprimer le poste de premier ministre comme Boun Dionne. Mhm. na ko yàlla na ko yàlla yërëm ci xaaral ko àjjana. Moustapha Niass dañ ko fal premier ministre pour mu supprimer le poste de premier ministre quest que Abdou Diouf devait à Moustapha rien. am na sax ñu ne Senghor moo waxoon Abdou Diouf ne ko na def Moustapha Niass premier ministre Abdou Diouf nee na c'est pas vrai Senghor mosu ko wax. mais ça c'est de l'histoire. bi Ablaye Wade faloo def Moustapha Niass son premier ministre pour onze mois Ablaye Wade sax mënoon nañ ne il devait quelque chose à Moustapha Niass pourquoi parce que Moustapha Niass dafa nekk candidat poussé Abdou Diouf au deuxième tour. ba pare dem soutenir Ablaye ab lay Wade gagné donc mënoon nañu il lui doit quelque chose. Mhm. mais mais gëm naa ne 2000 même bu doon Moustapha Niass Ablaye wadd da doon gagné ji élection yi en tout cas au deuxième tour. Mhm. nga jël ku mel ne. premier ministre yi fi Wade jaar yépp gisoo ci kenn ko xam da nga naan kii kat Wade lui doit quelque chose. nga jël par exemple bi Macky Sall nekkee premier ministre moom moom fa la wulee ñaay ay premier ministre am ay Ousmane ñàpp rek la doon yóbbu. il leur doit rien du tout. mus euh, Bassirou et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'il dit. il est président de la République. parce que son premier ministre l'a voulu. Mm-hmm. xam a wax. donc c'est différent ñële dañu nekk président mais ils ne doivent rien du tout à leur premier ministre. Mhm. kii nag il est président de la république parce que Diomaye lui-même la di mhm. ki ko def président moom la def premier ministre. Mhm. c'est-à-dire que Diomaye dit quelque chose d'intéressant il dit. kii ngeen wax nii Ousmane Sonko moom rek ci Sénégal ba Sénégal di Sénégal ba léegi moo fi joxoj ay député fal leen. wala déggoo loolu. Ah, moo fi joxoñ ay maire fal leen. Mm-hmm. moo fi joxoñ nit ne def leen ko président ñu def ko président. Mm-hmm. quelqu'un comme ça soo ko amee premier ministre soo bëggee liir digganteem ak le président de la république bëgg koo teg ci diggante Moustapha Niass ak Ablaye Wade wala ci diggante Abdou Diouf ak Senghor wala ci diggante Abdou Diouf ak Habib Thiam da ngay juum c'est la relation n'est pas la même c'est pas pareil mm-hmm. il faut qu'on accepte ça d'abord ba pare doog liir seen ay relation entre ñoom ñaar beneen bi Bassirou Diomaye fay en tout cas ci li ma gis. xaw ma nag moo Ousmane Sonko dinañ soppeeku parce que un homme politique reste un homme politique. Mhm. mais ci li ma gis li nga xam ne moo sonaloon suñ classe politique yi moom sonalu leen. muy pouvoir ak xaalis. Mhm. parce que président ngi nii bu tudd Bassirou Diomaye fay ñu fal ko président même bu fekkee ne Ousmane Sonko li mu daj. pour Diomaye nekk président. Mhm. Diomaye moom ci moom daju ko pour nekk président. mais bi ñu falee c'est Diomaye qui tient tout le pouvoir. mu jël pouvoir bi. jox wala boog mu jël ci ay pouvoir jox son premier ministre. Mhm. te wax na keroog ne constitution au Sénégal boo ko xoolee ba léegi le premier ministre reste très faible. Mhm. mais malgré tout il a donné des pouvoirs à son premier ministre xam nga lu tax. Mhm. parce que un dafa comprendre lan moo tax mu nekk président. Ouais. deuxièmement il n'est pas omnibulé par cette toute puissance la nga xam ne moom lañ doon jox suñu président yi mhm. ñuy buur di bummi mhm. finalement dañuy dem ba yaakaar ne ñoom ay buur lañu et ça important te dégg naa ko lu ma jàngat la ci discours mhm. Bassirou Diomaye Faye beneen bi mooy li nga xam ne dafa bokk ci lu ñu sonal suñu président yi mooy koppar xaalis le bien l'avoir j'ai l'impression que ñii ñoom sonalu leen encore une fois jusqu'à ce qu'il me montre le contraire mais impression mooy sonalu leen li tax mooy Idrissa Seck dafa mës a wax wax bu am solo. Mhm. bi mu nekkee ci Ablaye Wade. Mhm. daf ne dañoo falu mook ablaay Wade rek ñu dem pale dina ci mhm. ñu dem pale gars yi jox leen xam naa kees gi jox leen caabi kees gi yeeg chéquier yeeg yëpp. Ablaye Wade di ko xool mu jaag mu ne ko nos soucis d'argent sont terminés. <laughs> kooku tamit xam nga. est-ce que ko Idrissa Seck Idrissa Seck ko wax. ne Ablaye Wade moo ko wax. xam nga ki falu président. jël pouvoir xalaatoo lenn yow lu dul te say souci d'argent jeex na. mais y problème. Mm-hmm. mais ñii encore une fois j'attends qu'il me montre le contraire. Mm-hmm. mais jusqu'à présent j'ai pas l'impression que ni cet argent dafa leen omnibuler. Mm-hmm. donc relation boobu facilement dafay yomb. te li ko gën a yombal encore une fois daf ci bokk xam nga ñu ngi wax Ousmane Sonko le fait que générosité moo tax nekkul candidat à une élection deful comme ni gars yi doon def mooy comme bokkuma kenn du bokk. Ah, mais muut candidat. Mhm. campagnal ko yóbbu ko présidence. Mhm. xam nga loolu générosité wu Ousmane Sonko la. Mhm. mais dama ne bokk na ci li nga xam ne mooy yombal ànd bi. mooy la personnalité de Bassirou fay parce que su fekkoon dafa am personnalité boo xam ne day ñëw toog ci chaise bi. ne ah à partir d'aujourd'hui rek maay président. maay def may dindi. du ma nangu kenn di ma def de l'ombre. su boobaa problème am. mais c'est président. moom sa wax na ko mu ne je suis un homme lucide parce que li tax mu ne lucide mooy xam na li ko fi indi. Mhm. du ko fàtte xam na la moo tax mu nekk président. mu ne je suis un homme froid xam nga un homme froid lu tax muy baax. Mhm. c'est-à-dire que yow sentiment yi nit ñi def sa bopp. naan la yow kat kii ni mu lay xoolee. Mhm. kii dafa bëgg a jël sa place kii nangam ak nangam yow quand tu as la lucidité quand tu as la froideur da ngay ne yooyu du la soppi mukk. parce que Sénégal nag ku fi ku fi waxuma sax président mais ñun ñuy jiite ay entreprises yoo xam ne. lu tuutee tuuti la chaque jour nit ñëw ne la diw nàngam diw nàngam diw nangam diw nangam mhm. soo amul lucidité léegi nga mere ñëpp mhm. et ça c'est important beneen bi Diomaye il dit je suis un humble et ça c'est important humilité moo lay permettre moo ko permettre moom mu ne kii ñu naan il me fait de l'ombre mhm. depuis dix ans ngi nii ma nekk sous son ombre est-ce que daa tee ma nekk président de la république bi ko yàlla tuddee nekk naa ko donc le fait que mu may def de l'ombre tey en quoi ça me loolu mooy lucidité. mooy lucidité. voilà loolu moo tax mu ne euh, waa ji bu mu lorñe sama fauteuil bi. na ko ne jàkk na ko ne loolu daf may fàttali wax ju ñuy wax ne sëñ fàllu Mbacke moo ko waxoon. Mhm. ne Senghor mi bu leen ko piis ne leen ko jàkk. Mhm, mhm. tey Bassirou Diomaye Faye wax jooju lañu àndil. mooy Ousmane Sonko jërul ngeen naan day piis sama fauteuil bi na ko ne jàkk parce que li ma bëgg mooy moom mu toog fi. te loolu nag je suis désolé pas euh, Salma mais suñu opposants yi dañoo ñàkk solo. li Cheikh Bara Ndiaye doon wax ne ma jambal da nga koy xool rek xam dafa ñàkk solo <laughs> mais mais suñu opposants yi je suis désolé mais dañoo ñàkk solo dañu nekk ci ay détails yoo xam ne le fait que Bassirou Diomaye Faye ne man sama mission sama combat moo doon installer Ousmane Sonko ci fauteuil bii mhm. te ba léegi jógaguma ci ñu ne waaw parce que nee euh, am na ab deal bu buñ bëgg a def. président par intérim. waaw démb am na ab opposant bu ko wax. président par intérim Salma Salma il faut ñu. keneen keneen ki moom toog fale ne il doit démissionner mais parce que nag dafa lajj. il faut ñu sorel dégg-dégg bi. Mhm. il faut ñu sorel ko cest à que tey euh, Macky Sall mii bokk na ci li ko lor mooy nekk président de la République. toog ci fauteuil bi ba pare ne ñi ma ñi ma ñi ma topp duma ci dimbali kenn pour mu remplacer ma. Mm-hmm. numéro 2 de son parti sax. mu ko non Bassirou Diomaye Faye nu di je suis président de la République. Mm-hmm. mais li taxoon ma dugg ci politique di xeex moo doon yóbbu Ousmane Sonko au pouvoir pour mu transformer la Sénégal parce que gëm naa ne man na ko. Mm-hmm. yàlla man la dogal ma nekk président man. mais li ma xam ne moom laa gëmoon ba léegi moom laay gëm mooy fii ma toog dafay war toog est-ce que daf toog dans cinq ans est-ce que toog dans dix ans yàlla rek xam. mais laa man gisuma lan moo ci poser problème. li doon problème bi kay mooy euh, la waaj a doon wax euh, homme politique yi mooy Ousmane ko tegal Diomaye échelle wala mu tungoom ko. Mhm. ni ko yéegal mu yéeg ba ci kaw. tiim fur wi jël échelle bi pàdd ko mu daanu. loolu la bu jëmaay defoon lool mu bett ko. Mm. mu bett ñu mais il nous dit bi nga xam ne moom laa bëggoon a jël pour Ousmane Sonko dem pouvoir far Ousmane Sonko teg ma ci ma yéeg ba léegi dama koy bàyyi mu nekk fa mu nekk. Mm. et je vais pour mais loolu sax mooy cëram. mais xam nga tax fekkee ne ñoom. Mm-hmm. comme ni ko Ablaye Wade doon waxee que ni moom dafa bëgg famille am gouverner Sénégal pendant cinquante ans. waaw Ablaye Wade réussir na pare quel que soit les chemins ak nu mu ko defee nag. mais en tout cas bi mu paree ki ko remplacé ci njabootam la bokk muy Macky Sall mhm. mais Macky Sall su fekkoon ne dafa gëmoon loolu mënoon na dimbali kenn ci njabootu Macky Sall pour mu remplacer ko mhm. tey Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko ñoo la gën a xam ne mhm. pour transformation yi ñu dig Sénégal bi ma ci gën a neex nag mooy les autoroutes de de l'eau ak chemin de fer boobu moom yàlla naa ko fekkee yàlla nañu ko fekkee ñu ñëpp gis nga transformation yi ñu dig Sénégal ñoo la gën a xam ne ñoom il ne il ne peut pas le réussir en cinq ans. en cinq ans oui. et dix ans sax doyul. pour faire tout ça. Oui. mais su fekkee ñoom dañoo gëm ne dañoo am projet pour soppi Sénégal Bassirou Diomaye Faye mënul def plus de dix ans.